Jamra ngi lay exprimer toute sa déception bi nga yëkkatee les termes de on est en de gérer ça yëkkatiwaat beneen terme ne l'homosexualité est tolérée vous nous avez déçus l'homosexualité n'est pas tolérée ici pour trois raisons juriste